di sant ay jaamam yàlla moom nga xam ne moo ñu bind indi ngi ci kaw suuf ngir nattuñu mooy ki nga xam ni mooy jéggale ay bàkkaar not lépp ci kattanam ñu ngi seede ne kenn yooyewul ñu koy jaamu ku dul moom amul benn bokkaale ci moomeelam gi moom mooy dundal ku ko neex moom mooy rey ku ko neex te yi tamit moy kam kattantu lu meuna don ngi sedina muhammad yonentam la won bu mu joon ci ay yonentam mu ñew ngir begel jami ci yoon ba len di jeme aljanna ngire moytu lo jami ci yoon ba len jeme sawara yalla def ko muy lamp bu leer nanni mbokku la nga xamene ni mom moy suñu khutba tay bi mi ngi jëm ci fàttali e way képp kenn ci ñun waajalaat bis bi nga xam ne moom lañ koy delloo boroomam borom xam-xam yi topp téereb yàlla bi nee nañ aaya bi mujj wàcc ci alquran mooy fi suñu borom di wax naan wattaqu yawman turja'una fihi ila allah suma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun li yàlla mujj wax ak i jaamam te yàlla dootul wax ak i jaamam ba ila yawmi diin mooy ragal leen bis ba ngeen di dellu ci seen boroom ku nekk dañ koy fay la nga xam ne moom la jëfoon te it kenn du leen tooñ loolu moo tax ba suñu boroom mi ngi ñuy nettali benn nguur boo xam ne moo gënoon na yaatu nguurug Sénégal foofu mooy nguuru Firawna Firawna jamono bi muy dund moom moo yoroon nguur gi gën a màgg ci planète Terre suuf yépp na moom la nguuram gënoon a màgg moo tax mu'minu ali firawna lu mu waxoon yaa qawm lakumul mulkul yawma zahirina fi ard tey day kaw suuf yéene fépp doole naam waaye nag bu yàlla ñëwee ki mbiram ku ñuy dimbali ay yéen saw xeet xam leen ne àdduna jii day bànneex bu ndaw la ca mbokk firawna ma nga woon a nguur gu màgg suñu boroom ba mu ko alagee mu ne kam taraku من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيه فاكهين أنا فرعون نياتل بيت أي جردين أي دخ أي مبندي ألل أي خيول دان خيولو لول لب يالا دفل لنكو waaye kenn ka yàlla jubaloon ca ca pale ba mu ne xam leen ne dund gi dee dund gu gàtt la àjjana leen àllaaxira leen jëm ca foofu mooy saxuwaay ba ku fa yóbbu lu bon day yàlla du la fay lu dul lu bon amaa ku fa yóbbu lu baax yàlla tabbal la aljanna ñu la fay wërsëgal xaalidiina fiha abada mbokk kii yàlla nga ñuy nettali discours am bi ci kanamu buur bi gën a màgg ci kaw suuf ci jamonoom loolu moo tax ba yow jullit bi xellu ngan la waay xamal ni suñu boroom yàlla moo ñu bind lan moo tax mu bind ñu bi dañoo bind ngir ñu jaamu ko jaamu googee mu daal di ñuy wërsëgal lu bari ci suñu jëmm ci suñu xel ci suñu alal ci suñu njaboot lan moo tax mooy ngir ñu jàmm ko mu tàggatal ñu lépp lu nekk ci kaw asamaane ak suuf lépp di dox suñu service jant bi suñu service lay dox weer wi suñu service lay dox ngelaw yaa ngi nii taw baa ngi nii di wàcc oxygène baa ngi nii di tasaaroo lépp yàlla defal ko ngir doomu aadama mën a am dundugo dal ci kaw suuf waaye doon ko xam ni day wëlbati ko jaamu boroomam amma li ëpp ci doomu aadama yi mbokk xamuñu loolu la taxoon yàlla bind leen la leen yàlla dooleel ngir ñu def ko loolu leen jëm mbokk yàlla dañoo mayoon àdduna ak li ci biiram ngiree ñu jëfandikoo ko jaamu yàlla lu bari ci doomu aadama yi nag fàtte nañ jaamu yàlla topp àdduna nekk ay jaami àdduna mbokk da ngay gis ne yow mi xellu da ngay xam ne sa temps yëpp doo ko jagleel def ko àdduna muy sa jubluwaay waaye àdduna da nga koy jàppee jaaruwaay suñu borom daa yónni ab tam salallahu alayhi wa sallam daa di koy teg ci yoon daa di ne ay yéen jullit ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal daar al axira wa zakara llaha kasira képp koo xam ne bëgg naa texe àdduna ak alaxira xam leen ne yonent yàlla bi mooy seen royukaay yonent boobu lu mu daan wax man mag àdduna lu ñu siq àdduna daal dama koo jàppe tukkikat boo xam ne da doon tukki ci benn désert mu gis benn garab gu féex mu wàcc fa noppalu tuuti daal di continuer loolu mooy lan moo di ne jubluwaayam ci àdduna moo nekkoon mu def ko jaaruwaay ba daa di dem ci ngërëmal boroomam ba koy xaar muy aljanna àdduna mu def ko benn gaal ngiree traversé ba mën a yegg fa mu jëm loolee mbokk da ngay gis ni yonent boobu noonu la meloon bu ñu delloo ca ñam yaroon ñu jël ci kenn muy Ali ibn Abi Talib mës na taxaw ak mbooloo xutba leen benn xutba bu gàtt gàtt bu ëmb lépp mu ne yéen ay yéen nit ñi xam leen ne day àdduna mi ngi nii di dem na am mbokk jullit xamal ne la heure bii démb tey sa dund wàññeeku na tey wàññeeku na benn bis weer wu ne wàññi na at bu ne wàññi na gannaaw ba mu jeex mu ne kon àdduna ngi nii di dem di jeex mu ne àllaaxira nag ma nga nii di ñëw moom yegg seegul ma nga nii di ñëw mu ne nag ku nekk am na ay doom aduna amna ay domam ño xamne ñom aduna rek lañuy ñuy xalaatal bu ñu suba ba ba ñuy delu sen lal aduna rek lañuy ñuy xalaatal mu ne nak alakhirah amna ay dom ño xamne heure buñu xeyé mbolem lo xamne am nañ ko ci katan ak xam-xam ñoo ngi koy wajal la nga xamne moy alakhirah alaxira di ñëw mu ne ay way yéen borom xel nek leen ci domi alakhirah baña nek ci domu aduna tay yéen a ngi ci jamonoy liggey xisaab amul mbokk yàlla fayul jaam yi la ñuy def da ngay gis saay saay bu bono bono bono bon ba mel ni firawun ma nga nee ca palaya ma nga ca ay yet sam ci biir géej ma nga ca avion privé am te moo gën a bon ci kaw suuf nga gis waa ju baax ji gën ci dëkk bi mën na ma fanaan biir prison di fanaan ci perong te mën naa moo gën ci dëkk bi su ko defee mbokk àdduna kërug liggéey la pay ba mu ngi ñuy xaar àllaaxira moo tax mu a tey liggéey la pay ba mooy allaaxira amma allaaxira bu ñu fa demee liggéey amul moom allaaxira kenn du fa liggéey fayu rek a fa nekk loolu moo tax ba mu ne waa waajal leen képp koo xamee ne nii sa balance diis na day yow texe nga ku sa balance woyef xamal ne yow texee di nga loolu moo tax ba mbokk jullit fan yi ñu ngi dund jafe-jafe bu rëy ci suñu réew coow lu rëy ci suñu réew ci li ñuy tuddee ay élection ak la aju ci ay élection loolu taxul ñu jóg waaye li ñuy bëgg a xamal doomu aadama yi e waaye doomu aadama xalaat élection présidentielle yoo xam ne même bu lépp jaaroon ci yoon da ngay gis na kañ fal président fii dix ans ñu ne nañ ko wàcce fal keneen loolee d'accord xëy na mën nga caa wax jëfte waaye bul fàtte yow say élection mbokk ay élection mi ñuy xaar yoo xam ne ñun ñépp ay candidat lañu imma képp koo xam ne nii ëllëg réussir na ci élection yooyee ku mel noonee day texe mi ngi koy xaar ñan ñoo koy fal ay jëfam ñoo koy fal amul kenn koo xam ne dina ñëw àllaaxira lu dul am na élection boo xam ne kay contrôler élection ba mooy suñu borom jàll waala mooy cour de cassation cour suprême cour suprême de cours mooy mooy organiser la nga xam ne nii résultat ya malaaka yi génne la nga xam ne nii mooy résultat ya képp koo xam ne nii jox nañ la sa téere mu joge ci say ndeyjoor tey nii ngeen gis parti politique yi képp ku ci gañe tëb yuuxu tànqal nit ñi amma àllaaxira képp koo xam ne yow day réussir nga sa élection suñu borom yàlla nee na dana wër mbokko ya xarit yépp ha uma iqra'u kitabiya ay way xol leen sama réussite man day joortoon naa ne bis bi yàlla dana ma xisaab moo tax ma waajaloon ko inni zanantu anni mulaqin xisaabiya suñu borom mu ne ku mel noonu ma nga ci dund goo xam ne dund gu ñu gërëm la inchatu radiya mbokk dund gu ñu gërëm amul ci àdduna dama laaj bayden wala nga laaj putin wala nga laaj kum mën a doon ci àdduna koo gis ci aduna mi ngi ci problème tay mu neex tay nga am problème multiforme ci problème ma dal aduna amma al-akhirah hi ishatu radiya lépp lo geureum lay don sa wirgu yaram sa njabot sa loy deg loy gis luy xew lépp salaaman salaama mbokk kooku mooy ki réussir kooku moy ki waajaloon ay élection kooku moy ki wuton candidat ya nga xamna ñokoy ñoo moy lan moy al am imanu sahih wal amalu salih moo lijjanti woon ngëm gu sell lijjanti jëf yu baax ànd ak ñoom ñu voteel ko ba mu tabbi aljanna yal na yàlla boole ñu ca mu des nag ña nga xamee ne nii dañoo fàtte woon élection yooyu ñoom jàpp ni adduna moom lañu war a waajal am ñoo xam ne jël nañ seen bakkan jaay politique lii suñu bakkan lañ ci teg kee ma nga jël bakkanam jaay syndicat lii suñu bakkan lañ ci teg kee sport kee leneen fàtte la nga xam ne mooy dajeem ak boroomam mbokk ko mel noonee bu demee bu ñu ko joxee ay résultat ba mu xam ne échec na dana nëbb ay résultat ay waay yàlla te woon ma bañ a jëf lii ay waay ak a neexoon ma mënoon a delluwaat àdduna ba mën a waajalaat la nga xam ne moo may tax a jëriñ fi su jabbutoo ba sonn borom bi ne malaaka yi xuzuuhu fa xulluuhu jàpp leen ko ngeen joñ ko ngeen yóbbu ko la nga xam ne mooy sawara loolu moo tax ba nañuy delloo si waat xel yi lii ma leen nettali mbir la buy ñëw suñu kanam wallahi danaa ko fekke képp kenn ci dana ko fekke léegi nag ku nekk si ñun na laaj boppam waaye keroog ba nga xamee ni nii résultat yi dana génn man ci ñan lay bokk ci ñan lay bokk ndax dañ may boole ci waa ndeyjoor jox ma sama téere ma dem aljanna wala dañ may boole ci waa càmmooñ jox ma sama càmmooñ sama téere ma dem sawara ku nekk ci ñun war nay xalaat loolu xalaat loolu mbokk mooy tax ba àdduna bañ laa wor xalaat loolu moom mooy tax ba nga jéem a góor góorlu bañ a sàkku lu dul ngërëmal yàlla jalla waala e way doomu aadama jaayal sa bànneexu bakkan jënde ko sa ngërëmal boroom fa amma man sunu borom subhanahu wa taala mune fa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa koo xamee ni nii fexe na ba xeex bakkanam xam na man kat damay dajak sama boroom mu fexe ba bànneexu bakkanam mu jënd ko ngërëmal boroomam kooku àjjana moo koy xaar loole mbokk bokk nañuy gën a perte mooy ñi jël bànneexu doomu aadama di ko jënde seen merum boroom laa wallaahi mbokk julit julit da gëm ne kenn mënula laa jëriñ ku dul yàlla kenn mënu laa lor ku dul yàlla suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ci benn xadis boo xam ne ni ibni Hibbaan solo ko kii di Albani daal wéral ko moo dina yonent bi alei salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne nii day yaa ngi jëfe ngërëmal yàlla ba yàlla subhanahu wa taala ah, ba nit ñi mere la ngir loolu suñu borom yàlla dana la fegal lépp loo xam ne doon nga ko yaakaar ci nit ñi amul kenn kuy féetewoo ngërëmal yàlla lu dul yàlla may ko woom la ba du soxlal kenn dara waaye mu ne képp koo xam ne yaa ngi merloo yàlla ngir gërëmloo nit ñi yàlla subhanahu wa taala dana la mere te nit ñi duñ la duñ la mën a jëriñ lenn loo xam ne ni loolay jëriñ la kon nañ jéem a sàkku ngërëmal suñu borom jalla wa ala te xam ne loolu rek fa suñu njëriñ nekk àdduna ak àllaaxira ñu jéem a lu mbokk jaamu yàlla jaamu yàlla sax ca la nga xamee ne nii moom mooy jaamu googee bañ ca sàggee na dara suñu dund gépp ñu jagleel ko suñu ngërëmal boroom ca nga xam ne amul benn doomu aadama buy xëy lu dul mën naa def loo xam ne mën na koo jural ngërëmal yàlla waaye mën naa def loo xam ne mën na koo jural merum yàlla loolu moo tax ba ña nga xamee ni ni ñooy yeneen yu jëkk yi yàlla taggoon suñu boroom mu ne kaanu yusaari'uuna fi lxayraat wa yad'uunana rëhaban wa rëhaba wa kaanu lana xaashiin yeneent yooyu yàlla gërëmoon day borom bi nee na dañ doon jëkkante ci aw yiw ñoom la leen dérangé woon nekkul sama morom bi këram a dàq sama kër oto ma dàq sama sama oto wala nangam ak nangam la leen dérangé woon mooy kii day moom a ëpp ak jaamu yàlla kii day moom a ëpp ak xam-xam kii day moom a ëpp nangam ak nangam loolu mooy la nga xam ne mu leen dérangé woon looloo tax ba mbokk nañu ni ñu waa waajal naka la ñuy dajeeg suñu borom. nañuy dajeeg suñu borom mooy lan mooy ñu daal góor góorlu ca la nga xam ne moom mooy farata yim faratal ci ñun góor góorlu leen ci julli di ko def te waxtu wa di ko def ca laab ga jéem a jàng lan lañuy wax ca julli ga wallahi li ëpp ci doomu aadama yi xamuñu bu ñuy julli lu ñuy wax yeewu nañu rek gis seeni nit ñi di julli ñuy julli waaye ndax xam nañ li ñuy wax laa lu bari ci doomu aadama yi xamuñu ko loole mbokk góor góor góorgóorlu xam looy wax ci julli lu ci góor góor lu koor gaa ngi ñëw lu way man ci lu baax mu daal di koy waajal koor googe lépp loo xam ne lu baax des koy waajal doo bàyyi ba mu ñëw nga doog a jóg da koy waajal ci lépp loo ci nar a def ci lu baax loo ca mën a xam jàng atte yi nga xam ne moo ca nekk lépp loo xam ne ci ponk diine yi ngeen bàyyi ci seen xel waaye rawatina ngeen góor lu jàng seen tiiru borom ay yéen góor jullit ñi góor-góorlu leen jàng seen téere borom ak may déranger trop su ma déggee ay politiciens naan waaw lii sunu constitution wax article 32 article 62 article nangam li ëpp ci ñam soo leen wéetoon na leen ndax man ngaa taaya mënuñoo taaya lan mooy charte julli xamuñu ko lan mooy ponk yi nga xam ne nii mooy ponk yi aj xamuñu ko et pourtant dañoo naan suñu constitution comme ni ñuy naane ndox mbokk jullit terewuñu leen ngeen xam àdduna waaye doomu aadama dafa war a xam leen muy priorité doo dugg bàmmeel mukk ñu laaj la constitution Sénégal doo dugg bàmmeel ñu laajte constitution Mali wala Mauritanie soo déggee bàmmeel lañ lay laaj mooy ku nekkoon sa boroom kan moo nekkoon sa yonent lan moo nekkoon sa diine ndax mbokk jàng nañ suñu diine ba xam suñu diine lii mooy la nga xam ni war nañ ci góorgóorlu suñu kemtalal kàttan jéem a jege palaasu xam-xam yi rawatina jàkk yi nga xam ni dañ fay jéem a leeral téere borom bi subhanahu wa taala góorgóorlu àdduna bi luñ ci am na am kenn terewul doomu aadama am àdduna waaye la nga xamee ne mooy sa jubluwaay àdduna lépp na doon looy jëfandikoo ngir alaxira loolu la ñu suñu borom wax wa bataghi fii ma ataaka allahu daar al axira lu la yàlla dikke mooy ci xam-xam ci kattan ci njaboot ci pouvoir ci lu mën a doon sàkku ci a ngërëmal yàlla sàkku ci la nga xam ne mooy àllaaxira donte ne bul fàtte sa cër ci dund àdduna ba mën a dund dund gu normal waaye sa jubluwaay lépp na doon la nga xamee ni nii mooy àllaaxira mbokk kañ mooy àllaaxira àllaaxira mooy bis boo xam ne nii mën na lënkoo ak yow ci benn bis mën na lënkoo ak yow ci benn place mën na lënkoo ak yow ci benn yoon amul kenn ci yéen ku ñëm lu dul mën na nettili ay exemple yu dul jeex waaye loo xam ne xew na ci semaine bii ñuy dund ñu ngi nekk fi 21 école 26 bi directeur bi nga xam ne moo ko jiite ci ñetti fan ci gannaaw la jóge këram fii ci unité 16 di dox jëm ci li nga xamee ne mooy école bi ci yoon bi ci angulu 26 bi fa la daanu mi ngi noonu ñu jël ko dugal ci hôpital bi faatu na bi muy tàggoo waa këram ne maa ngi dem jàngali école ndax xamoon na dana yegg na am mbokk nañu xam ne doomu aadama bi lépp loo xam ne mën na koo faat sabab la waaye dogal ba ci yàlla la jóge mën nam ñu ne xëy na dafa am feebar wala nangam waaye ana ñaata ñoo xam ne ay oto ñoo leen rey ci yoon bi ana ñaata ñoo xam ne scooter moo leen rey ana ñaata ñoo xam ne miir moo joge ca kaw maa bu seen kaw ana ñaata ana ñaata looloo tax ba doomu aadama dafay bàyyi xel ne dundugu adduna gii day may kër kër yi bus bu ne mën naa jeex amma alaxira nag mooy lu dul jeex ba faw kon dana def sama kéemtalal kattan ba bis boo xamee ne nii malaaka yi borom bi ñëw nañ ci man duma bokk mukk ci ñuy réccu nan yàlla mayaat ma mu dund tuuti ngiree ma mën a def lu baax te la nga xamee ni moom la bàyyi gannaaw ay yéen bokk julit xam leen ne suñu borom yàlla borom yërmande ju màgg ci suñu borom yàlla mi nga ñuy woo ci di wax ne ay yéen julit ni góor góor lu leen delluwaat tuubaat ci seen borom bu leen génne yërmande yàlla ci yéen yàlla mooy ki yaatu loo mën a dikkee ci bakkaar soo ñëwee mu raxas la ba nga set wecci jéggal la boole la ci ay mbooloom waaye mu ne nag góorgóorlu leen ci loolu balaa dee di ñëw waaye góor góor lu leen topp la nga xam ne moo gën a màgg moo gën a rafet li ñuy wàcc ci yeen te mooy alquranul karim balaa bi sa ñëw la nga xam ne mooy ak rëccu du am ay yéen doomi adduna képp koo xam ne dafa jàpp àdduna lay war a xëyal xanaa du bànneex rek nga bëgg xanaa du xéewal nga bëgg suñu te sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom yàlla day nee na ko man day waajal naa samay jaam yu baax yi loo xam ne nii bët koo gis nopp musu koo dégg am xel musta xalaat ba xalaat lu mel noonu yonent bi daal di jàng aaya ba yàlla di wax fala taalamu nafsun ma uxfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kaanu yamaluun benn bakkan xamul xéewalu àdduna xéewalu yàlla di xaara ci àjjana na màgge bakkan munu koo xam munoo fexe ba xiyaal ba xalaat ba xalaat ba xam àjjana nii la war a mel àjjana moom mooy dem gis rek yal na yàlla yóbbuñu fa lool nag mbokk yow mi nga xam ne danga ngaa nga la waay fexeel ba su dundug àdduna gi jëfandikoo ko ci lu neex yàlla soo ko defee day day nekk paaka ñaari boor suñu borom yàlla dana neexal sa xol teeyal sa dund ca boo dajeeg moom mu jéggal la yërëm la tabal la fil janna xaalidiina fiha abada nañ jéem a bëggante ca yàlla tax nañ jàppante ca yàlla tax yéenente jàmm ci yàlla tax ku nekk sa jubluwaay lépp looy wax wala nga koy jëf ak foo ko mën a jaarale na doon da ngay politique dangay da dangay lu mën a doon sa jubluwaay na doon sakku ngërëmal yàlla jalla waala lii rek mbokk ca la doomu aada bi mën a texe lii rek ca la société bi mën a texe yal na yàlla delloo ñu ci yoonam gën jaare fa te delloo yal na yàlla wàcce jàmm ci suñu réew yal yàlla wàcce jàmm suñu njaboot yal yàlla wàcceel ñu jàmm ci suñu diine wàcceel ñu jàmm ci suñu fii fi dunia wal axira yal nañu yàlla musal suñu ay bakkan musal ñu ci ay cheytaane musal ñu ci ay yéefar yag naafiqiya te yàlla rafetal la nga xam ne mooy suñu mucc allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala almursalin والحمد لله رب العالمين